Euh, salaamaaleykum sëñ Ibrahima Ndaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. Euh, yow yaay chef de village su Gassane commune commune rurale bu Gassane. wala commune bu Gassane. waaw chef chef de village bu Gassane centre waaw Gassane Ndaween. waaw gasaanu dewen waaw foofu dañ ne dañ dañ ñu interpellé nee ne kooku agression yi dafay bari dafay bari trop trop trop trop trop moom kay fan yii sonal nañ ñu lool ba ma demoon ci gendarme yi sax wax leen mhm. bu njëkk ndax dañoo fee njëkk benn firdo mhm. ñoo fi wàcc ci guddi gi rek dem ci eh, fi kii jaay café di jënd café rek mhm. ay xale pël fekk leen fa ñu jënd seen reer ba pare rek am na ndaw si yoroon portable bi na leen na ko portable bi daal message yi dañ di wàcc xoolal ma ko ba xam jox ko firdo bi. Mm-hmm. nekk booba xale yi xale yi ñoom booba xale yi pël lañ nekk boobu ñoom portable bi lañ soxla. Mm-hmm. rek mu jóg taxaw nii di di di di manipuler portable bi rek mu sës ko nii mun ka ah yow jege nga ma di loo may jege nii rek. mu génn jaasi ji rek war ko ci loxo. loxo bi xam naa ne moom yàqu na mu ngi foofu Touba. Mm-hmm. te beneen ba borom borom bitik ñaari borom bitik. ñu tëj bay ñibbi ñu attaqué leen ñoom it seen jaasi. góor ko ñaari góor góor benn bi dugg na tuuti benn bi dugg mm-hmm. beneen beneen bi itam beneen commerçant la moom itam muy ñibbi mu dajeeg ñaari xale ñoom itam ñaari xale yi toll lañ ba tey mm-hmm. ñu waaxu rek wut si ko wut si ko rek bana ragal ci ko mu génn jasem rek ñu daw mm-hmm. beneen bi ci des di beneen di ci des biig la ñaari agression am na si ndax kenn ki doon yoroon potence bi jaay ndox mi bi muy ñibbi ci guddi dañ koo dogale ba gor ba mu gaañu muy ko ñuy wax waagaan dafa dafa faatu déedéet faatuwut waaye gaañu na ne gisuma ko nag waaye neen gaañu na mm-hmm. keneen ci itam këram lañ ko fekk xam naa bëggoon na jël ay xaram moom itam mu gën a jaasi xam naa mënoon na leen a jàpp sax dàqe na waaye mun leen a jàpp mm-hmm. keneen ci léegi li ñëw ci man na ma sama kër ñëw nañ fa ma yëg leen ndek ubbi nañ sama robinet bi ndox mi fanaanet foofu maa ngi leen dem ci gendarmerie mi ngi nii bi may woo léegi mi ngi na ma ci gendarmerie laaja man ko waa demal ci rek déclaré ko kon gasaan am am na bi mhm. am na brigade waaye brigade bi dañ dafa continuer brigade bi dañ fiy nekk eh, dimanche altine ba àjjuma samedi ñu delluwaat Linguère ñeneen mhm. ñëwaat mhm. ba ñooñu dañuy dañuy dañuy monté fi rek waaye ñoo xam ne ñu dañ fay sax dàkk moom di wër di di di di wër amul ma demee ci ñoom it dañ ne ma woon dañ wër commencé nañ di wër waaye gasoil ma ne ko nag gasoil moom xam naa ne yombut waaye kon man danaa seet dëkk bi ku leen ci mën a jàppale ci gasoil mu jàppale leen ndax fii na daal fii ni ma gisee daal dafa mel ni campagne bi door moo tax tànk tinkeeku bañ defee ne dëkk bi rek amut borom lu la neex def. léegi ndax mën nañoo xam euh, Aliou Sëñ Ndaw waaw ndax mën nañoo xam ni agressé ci dëkk bi lañ dëkk wala ñu fa ñu fa ñu fa wàll si. man mel ni ni dëkkuñ fi de. Mm-hmm. ndax dafa mel ni dañ fiy ñëw rek. dafa mel ni dañ fiy ñëw. dëkk bi nag dafa lëndëm xam nga lamp yi daanaka amut solo tàkk bi amut amut lamp yi tàkkuñ daanaka. fi mhm. si nit ñi nekk daanaka amuti lamp. Mhm. waaw xam nga ak brigade bi daanaka benn lañ bitig bi sës si brigade bi barki démb rek lañ koy yéeg xotti ci kaw dugg ci biir jël wecc bi ñaari bitig lañ fi defaat noonu. bitig bi sës ci biir ci bi si brigade bi rëkk laa la wax. Mhm. dañ koy yéeg xotti ca kaw dugg ci biir sotti wecc bi ba dem. ngóor si Sadio la dëkk Sadio la dëkk day jaay fii. Hmm. keneen ki ci des fii la dëkk ñaari bitik def nañ ko fi noonu ci fan yii rek. xam nga loolu nag amul sécurité waxuma la nag xar yi ñu fiy jël moom mënuma laa limal moom. Hmm. guddi gu nañ mën a jënd nañ xari sàngam wala topp nañ leen denc nañ xare nangu nañ leen rek wala daw nañ. Hmm. rek ci lañ dëkk sécurité daal moom amu fi Mm. yéen yéen lu ngeen bëgg euh, actuellement nii ñu état bi defal leen ko surtout ministre de l'intérieur ki nga xam ne moo yore wàllu sécurité bi lan ngeen gën a bëgg pour ngeen wax ñoom ñu dégg leen ngeen xam ne euh, yéen askanu Gassane sonn ngeen lool. liñ bëgg daal mooy sécurité boobu bu doy boo xam ne bi dañ ciy nekk brigade bu sampu spécial yor seen oto bu guddee ñu def tournée bu mu jotee kuñ gis ñu téye la ba bët set ba xam looy dox ndax loolu mooy tax dëkk. nit ñi moytu ko waaye bu fekkee nag da dox ba heure bu la neex kenn du la wax dara nga yor jaasi ci biir dëkk kenn du la wax dara xam nga loolu baaxut te ñuy gaañ ñëpp ay jaasi lañ yor su ki yor jaasi ci biir dëkk bi la nekk hmm. ci biir dëkk bi la ñuy nekk am nañu daanaka dëkkuñu fi ah ñi ma ci yaakaar ne jàppaguñ ci ci dëkk de hmm. jàppaguñ ci kenn sax ndax dañuy gor rek daw wóor si goroon da bi hmm. da koo gor rek daw tey gisoo ni keroog jànn nañ ko indi tey gisoon ni ñoom population mën nañu jéem a manko pour xool naka lañ mën a def ba faagaagal loolu moom population bi bu dee jeunes yi xale góor yi fi ne. waaw xale góor yi ñoom jéemuñ ci dara ñoom kay man wax naa ba sonn waaye ñoom daanaka même jéemuñ ci dara ndax bu jant saa kenn ku ne dugg sa néeg rek du wala dugg sa kër toog ñenn ñi dégg nga am ne ci mbedd yi taxaw di dox di di waxtaan di bu leen neex ñu tëri ci dara. man kay béykat laa demoon keroog wax ak ñoom ñu ne ma bu ñu amee gaa bërki démb wër nañ fii sëpp waaye bu ñu ah gasoil bi moo yombul man nag wax gasoil bi moom yombul bu ñu leen joxul gasoil bu doy moom du yomb waaye waa dëkk bi kon ñoo war a da ñëw naa ci ay commerçant yi wax leen kon na leen lii nee nañ bu ñu leen wutalee gasoil ñuy wër ñuy circuler di wër bërki biig war nañ bërkaati biig wër nañ waaye xam nga boo xamee ne bi bu ñu la joxee gasoil it semaine bii ngay ñëw bu semaine bee doo ñëw mm. loolu gasoil du duñu jëriñ dara mm. bu fekkoon dañ koy toog nga xam ne boo joxee gasoil ñu ne weer nangam nekk weer wala ñaar fukki fan mm-hmm. waaye semaine la ñuy def dem ñeneen ñëwaat waaw ana maire bu Gassane bu Gassane moom lan la ci jéem actuellement nii. maire bi dëkk fi maire bi ma nga dëkk ci àll ba fi mu dëkk Gassane presque mën na vingt kilomètres. Hmm. vingt kilomètres dëkku fi mu ci àll bi. mais moom jéemu ci benn taxawaay en tant que maire ah, ak lëndamaay foofu. gisuma lenn lu ci jéem de man damaa gendarmerie dong nga ci nekk waaye gisuma maire bi gisuma lenn lu mu ci jéem. waxu ci woote wut jéemut renforcer wowut sous préfet wowut préfet. waaw ah. ah. man ci gendarme yi laa yem même dem naa ba ci commandant bi sax ba jot ko waaye commandant bi li ma wax mooy eh, eh, nit ñi seen bopp ñoo jàppale wu gendarme yi ndax bu ñu leen jàppale woon dañuy renforcer di leen jàppale ndax kuñ ci gis ngay def lu wu ñu boole la waaye loolu duñ ko def man ko loolu moom dëgg la nit ñi ma am na ci nañ duñ weer ket kenn ku ne da ngay saxay aar sa bopp rek xam nga loolu it lu lu lu lu du defar dëkk dëkk boo fa gisee lu yàqu da nga a kon xanaa gasaan dafa yaatu lool gasaan waaw dëkk bu mag la gasaan ak Touba gasaan dëkk bu mag mm-hmm. juróomi chef de village yoo fi dëkk ci dëkk bi waaye chef de bu mag moom mooy man ah, waaye juróom laa ko seqat yoo xam ne kenn ku ne yaa ngi fare côté mm-hmm. Touba gasaan la ak gasaan laween ak gasaan pël ak gasaan ngoy waaw mm-hmm. ah, dafa yaatu eh, jërëjëf sëñ Ibra Baol Média ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm vraiment ci leeral yu am solo yi nga xam ne def nga ko waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf yéen itam li baax na ci ndax bu ngeen ko doon def rek dëkk bi dana am changement incha allahu rabbi ah. dinañ ko yaatal ba yaakaar naa dina gën a dina gën a jotal fépp waaw baax na jërëjëf baax na jërëjëf waaw hmm. moom daal léegi bu timis jotee rek hmm. suñ la yaakaaree dara hmm. rek daal ci sa kaw ba barki démb dong suñ jaay waa ji nga xam ne moo nekkoon fi di jaay ndox mi yor benn potence Mm-hmm. biig waa biig dimis bi mm-hmm. ci ko agrégé mm-hmm. waaw borom bitig kon kon kon daal ku fiy jaay bu tàkkusaan jotee mën ngaa wàcc boo amul boo amul kaaraange waaw wala waaw wala xam même fi même dañuy defe léeg-léeg boo sax dem Touba boo dikkee waaw boo gàddoom saag sax ñu yaakaar da ngaa jaay woon gerte ñëw am na ci ñooñ loolu sax lañ leen fooge fekk ñoom yoruñ dara far waaye duñ ci topp kenn ba këram moom pour bu guddee ñu ñëw fëgg koog yooyu ah loolu day déggoon naa ko ci ay jigéen yu nekk fële ca boori àll ba mhm. waaw yooyu day déggoon naa ko foofu waaye xam nga léeg-léeg a ah, ñooñ ñeen ñi ne pour jigéen jaa tax ñeen ñi xaalis a tax waaye moom liñ fi jot feeñ moom fële ca boori faas loolu xaalis moom lañ jële ci kooka ndax kooka dafa yoroon ay natt jigéen la ñu fëgg ko guddi ko moom déedéet waaye amoon nañ ku ci gaañ ko xale bu góor benn ba doon jaay commerce kay gaañoon nañ ko moom jël ci moom dara moom ah. loolu kañ la tàmbali ba mu tàmbaleek léegi mën na weer. yàgg na li ma lay wax xale loolu ma lay wax yàgg na loolu ma lay wax yàgg na faas loolu yàgg na. waaye léegi ba léegi yéen itam jéemu leen a wax fenn pour ñu yokk seen sécurité. ah, ah lu ci wax koy sécurité chef village bi moo ma jox téléphone bi léegi. Mhm. ñu koy dañuy wax. Mhm. ñu koy dañuy wax di ko wax gendarmerie jël ñu gendarmerie joxoon suñu numéro. waaye léegi soo wootee guddi yeeg de wa tabaarakallaahu rek. waaw ñun léeg-léeg ñu am waaye dañ lay wax foog ñu woo Linguère Linguère soo ko wax xam nga bu ñu koy def préparation bu ko defee gars yi ñoom dañuy gaaw seen seen problème dañ koy teg dil du ma trente secondes ñu def li ñuy def def. Hmm, kon ñoom li ñu ñoom dañuy xool dañuy yér mel ne daam ku nekk ci dëkk bi ku leen di wax ni police yi di wala centre ba nekk waaw waaw rek la ñuy def dem xam nga ni ñu koy defee ci taak rek lañu ko defee fii mais du ngeen xam mbedd mu ñuy jaar sax bu ñu defee seen caay-caay googu dañuy daw xam nga fi lampi du tàkk hmm. lamp yi day lëndëm mhm. waaw léegi buñ jaaree mu lëndëm buñ dawee doo xam dañuy daw dem mhm. waaw loolu bi sooy bu Samb Gassane baax na jërëjëf jërëjëf sëñ sooy bu nu Gassane di dund ba tax na nag euh, ñi ngi woote wàllu ngir ñu dimbali leen ci wàllu sécurité ndax ay agression ay foqat yëfi jàmbur ci ay nit ñu yor ay jaasi ñu ñu identifier loolu tax na askan wi ci boppam ñu ngi am ak jaaxle ñu ngi am tiit loolu nag tey jii am na kenn koo xam ne nii nee nañu démb ci guddi agressé nañ fa benn séréer boo xam ne dafa yor bitig nee na itam agresé nañ fa ay nit ñoo xam ne dañoo jaaroon ci mbedd mi di dox ngir di ñibbi seeni kër wala ngir ñi wuti lu ñu yóbbu seen kër ñu àgg se leen te ñeen itam ni leen di agressé ñaare ay jaasi lañu yor ah, doon nag mbir moo xam ne mbir mu doy waar la ñoom waa gasaan nekk ci euh, yaakaar naa ci Linguère la bokk ñoom ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange gi ñu dimbale leen ci bu baax ndax sonn nañ te it jaaxle nañ te it nag mbir mi toll na foo xam ne nii kenn mënu koo natt kenn mënu koo xayma ci ak jaaxle ak jëfin yu ñaaw yoo xam ne nii mënee koo xayma itam ci ñaawaay ndax kat yore sa jaasi fekk borom kër bu tëdd ci këram yore ak jur nga jàpp ko fekk ko ci biiru njabootam yeew ko wala nga cor ko coor yu metti ngir ay nagam wala ay xaram wala sax bitig ba nga xam ne fa la doon yaxanoo di wut lu mu dundee wala lu mu dundal ak njabootam loolu daal lu ñaaw la te it nag lu doy waar la kon daal waa gasaan ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ne nekk ci Linguère wala ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci Taïf Sadio ñoom ñëpp ñu dimbale leen surtout waa gendarmerie ak waa police ñu dimbale leen yokk seen kaaraange ndax daal askan wi sonn nañ lool lool. bari na ay yoo xam ne ñu ngi ko fay jot te it nag bëgg nañ ku leen wallu ndax itam jaaxle nañ lool jàq nañ lool te it nag amuñu feneen fu mën a daw gàddu seen i bagage dem fa foofu rek mooy seen dëkk te moom la ñu xam ñuy ñaan askan wi ñu dimbale leen ñu fàtt leen daal ñi koy def ñaare ah, ay jaasi la ñu yor buñ la fekkee dañu lay kar ci mbedd wala ñu fekk la sa kër wala ñu fekk la sa bitig laaj la li ñu yor wala ñu laaj la boo leen joxul ñu jël seen jaasi cor la ko loolu nag nekk lu doy waar lu tiis lu métti loo xam ne nii ni askanu gasaan ñu ngi koy dund ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal jàmm di wax rek ne ngeen dolli su ngeen amee leneen loo xam ne ba ngeen ñu ko jottaliwaat ci ay xabaar mën ngeen jaar ci seen numéro whatsapp bi ngeen yónnee ñu ko lii nag eh, xibaar la boo xam ne identifié nañ ko mu leer nañ ñi ndax askan wi ñoom ñoo koy dund mu nekk lu doy waar lu metti lu tiis jërë ngeen jëf